tey dimanche euh, fukki fan ak juróom-benn ci mois de janvier deux mille euh, vingt deux il est presque euh, midi trente minutes fële ca Bamako lañu dem c'est urgent xibaar bu tiis. muy euh, kii di Ibrahima Boubacar Keita nekkoon fa njiitum réew diggante 2013 ba 2021 moom la ñu annoncé léegi ne génn àdduna annonce bi nag waa télévision nationale ORTM ñoom ñoo ko joxe ne ci famille lañ koo jëlee muy xibaar bu wér te wóor Ibrahima Boubacar Keita ñu gënoon koo xam ci IBK génn àdduna tey ci. Euh, juróom-ñaar fukki atam ak juróom-benn. xamle leen ak Ibrahima Boubacar Keita Ibrahima Boubacar Keita tey jii mu ngi génn àdduna ci juróom-ñaar fukki atam ak juróom-benn ci le 16 janvier 2022. ñu dikk ak yéen xamle leen kan mooy Ibrahima Boubacar Keita moom mi ngi nekkoon njiitum réew ca diwaanu Mali ci le 4 septembre 2013 ba le 18 août 2020 am na ca bopp réew ma juróom-benni at ak fukki weer ak benn yu teg fukki fan ak ñeent. ci biir loolu le lan ko amal coup d'état ki ko amal mooy Assimi Goïta mi ak ñooñam ñi mu àndaloon moom Ibrahima Boubacar Keïta première élection bi ñu ko fale mi ngi nekk le 11 septembre 2013 ñu daal di koy ci ñaareelu mandat ci le 12 août 2018 moom premier ministre yi nga xam ne jaar na ci ak nguuram bokk na ci premier premier ministre am nekk Omar Tatemi Ly bokk na ca Moussa Mara Modibo Keïta Abdoulaye Idrissa Maïga ak Soumaïla Boubou Cissé juróomi premier ministre ñoo jaar ci nguur Ibrahima Boubacar Keïta nekkoona na tamit euh, koo xam ne mi ngi nekkoon fule ca biir assemblée nationale ba euh, jiite na ko le 30 juillet 2002 ba le 3 septembre 2007. am na fa juróomi at yu teg benn weer ak ñeenti fan mi ngi fa wuutu woon ku ñuy wax Aliou Nouhim Diallo waaye Djinkuna Traoré aussi moom moo ko fa wuutu nekkoon na premier ministre tamit ci nguuruk Alpha Oumar Konaré ci le 4 février 1994 ba le 14 février 2000 am na fa juróom-benni at ak euh, fukki fan. Ibrahima Boubacar Keïta moom la aussi ci fàtte rek te biographie mi ngi euh, gane jamono ci la vingt neuf janvier mille neuf cent quarante cinq fële ca euh, Koutiala waaye mi ngi génn àdduna tey jii à euh, huit heures du matin ci le à l'âge de 76 ans kon ci gàttal ay fan yu néew moo tere woon mu am lii di juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar Ibrahima Boubacar Keïta jullit la woon waaye tamit mi ngi doon nekkoon ab sunnite wàcc ab liggéey tey jii ci Mali